seen site Dakar Matin moo leen di may seen revue de presse ak Pape Alé Niang simila yéen kay yëpp xëyte ji ci élection yi nga xam ne amoon na démb ñuy tab au conseil des collectivités territoriales yéene bi di la populaire na coalition Benno Bokk Yaakaar daanaka du mën a ñëpp fépp waaye nag ndakaaru dafa xalanku tribune ne keex-keex ay ñuy ree ree bu baax a baax kan lañuy tabaskee ndakaaru loolu lañu ñu bi di la tribune laaj tey ci ci xëtam bu njëkk Alioune Ndoye wala kii nga xam ne mooy Abdoulaye Diouf Sarr lu mën a amit ba des yéene kaay bii di la populaire na xalifa sàll mooy xalifa ndakaaru waawaaw tegaat na loxo ndakaar duma na leen fii ci ndakaaru yéene kay bi Le Quotidien ne victoire bu capital nag capital lool tanoor nërmeelu su suuf lajju ndax nag foogoon na ne dina foqar ci ndakaaru ci loxoy Khalifa Sall Khalifa Sall dafa yàq sax ngañaayu Macky Sall ndax nag Macky fépp daanaka la benn Bokk Yaakaar duma waaye ba mu ñëwee Dakar dañ ne ko fii kekk la nen du fi bondé Foundiougne Gossas Bounkiling aussi ak Ziguinchor tamit gaañ dañ fa taxaw jonn na ko déedéet ala accu fii Macky doo fi gaña dara yéenekaay bi nga xam ne moo di Le Témoin ne Balde gañe na fi nga xam ne moo di Ziguinchor yéenekaay bi la tur bi ne ko dëgg la kay Balde moom mooy kilifa Ziguinchor loolu la élection yi wane Omar Sarr dañ koo duma Dagana loolu la observateur xamal tey jii yéen kay bi la témoin bu leen yem ci Omar Sarr parti démocratique sénégalais kay ak seen i liste dañ leen làbbali fépp gañewuñ fenn ba tax 80 au conseil yi Benno Bokk Yaakaar teg na loxo ci 70 yi waaw dañ ne woon Youssou Ndour délinquant fiscal la Ousmane Sonko moo ko waxoon gars yi di ci am xel ñaar yéen kaay bi di laas ne dëgg la fi mu nekk nii jox nañ ko redressement fiscal lu toll ci deux cent soixante douze million te nag nee nañ ko ci juróomi fay yi bu ko fayul dañuy tëj ay compte banqueram am délinquant financier bu mag la Ousmane Sonko ne mukk duma noppi benn yoon yéenekaay bi nga xam ne moo di le témoin ne samedi de l'économie lañ ko invité mu janoog nit ñi mu ne leen bu nekk yorin bu yées bu bon boo xam ne dara leeru ci lépp lëndëm nañ ko seet ci nguurug Macky sàll li muy pasar pasare alalu réew mi jéggi na doyoo te faaw nag askan wi xam ko coon sekk wax na yéen kaay bi la populaire ne coon nee na ñeent fukki atu yàllaa ngi nii injustice rek lay dund te fépp fu mën a dugg manager bu Coumba Gawlo Seck moom it tontu Youssou Ndour ci vacances citoyennes bi Youssou Ndour doon tëj fi nga xam ne moo di monument de la renaissance yéen i ko Quotidien na toj na fa waaye toj nit na tamit vacances citoyennes yi ndax manager bu Coumba Gawlo ne xam nga lu métti Youssou Ndour li Kumba wax mooy dëgg gu wër péng te kenn mënu koo dindi dëgg mooy lan gaynde yi tamit lu ñu def mucc na ayib lool 18 points la ñu am sur 18 carton plein yéen kaay yëpp nag xëy ci ngay kaay bii de populaire na gajanan waaye demewul lu mën a demee lu mën a it ba des daal yéen kaay bii nga xam ne moo di l'observateur ne Aliou Cissé daal lañ ko laajoon def na ko jërë ngeen jëf ci déglu bi ñu doon déglu seen site dakarmatin point com